di len dokkel ci li nu genn muy magal gi di ñaan suñu borom nangul nuko ni nu bëggona a le serigne touba yalla suñu borom di balu ñëpp ak di bal ñëpp ak di ñaanal ñëpp di sak ñëpp ñaan di ñaan yalla boole jéggal ñu di sant yalla ci xewal yi mu nu defal rawatina boole gi mu boole ak serigne touba di ko ñaan nak ci mbaxam ak yermandem ak tawféexam mom yalla likoy neex yalla na ci boole yagal cheikh mohammed Mouhamadul ko kartanal ko ar ko ba li mu ni sëriñ liggéeyal sëriñ Touba mu liggéey ko nu ànd kook moom te muy njariñul julli yëpp nu am ci ngërëmul sëriñ Touba li tax nu dikk nii nag ci dikk bu gaaw dafa am lu xew ci Touba ci jumaa yi Touba muy lu doy waar loo xam ni bu doon guléet sax dañ ciy wax waxantu bu laag bi mu dul guléet mooy am na benn jigéen bu wax Marichou di jouer théâtre wala mu am lu mu def ci film yi moom tur yeeg tudd ko yëpp sax yitteelunu waaye mbir mi ci moom la jaare mu ñëw Tuubaa ci màggal gi ñëw ba ci jumaa ji dugg ci jumaa ji gis ñi fi nekk ñu ubbil ko jumaa ji yéegal ko ci kaw yéegal ko ci soorool Lamp Fall bi yéegal ko ci sooroor bi mu yéeg ba ci kaw cib sooroor ci benn sooroor yi yéeg ba ci kaw di fa def snap di teg musique moom Marichou moom nag benn li ñu jëkk a wax ci moom wax ji jëmul ci moom waaye am na lu ci jëm ci moom moom bu dee jullit ak tarixa bu mu mën a bokk ak fu mu mën a bokk bu amee yëg-yëg ci yàlla ak yonent bi dara war naa xam ne bi muy def loolu amul lenn lu mu ko mën a layale avec sa conscience tranquille conscience boppam moom Marichou waru ko a may loolu ngorob muy ko jomam ak njuliteem waru koo may même bu dul julli sax ak tooñ mënut a weesu loolu mom munuy suko wax dara ci kanam ñi may bëgg wax moy da'iratu muqaddamatul khidma mi ñu denk jumaa ji dénk leen armel yi ak li wër jumaa ji yépp responsabilité bi yépp ci da'iratu muqaddamatul khidma di tege te gis nañ ni amna yu gëna tuti yoy sax ci ñuy filmer wala dara buñ fa ñëwé dañ ko saytu ba loola lu du am kon nak li am mom ubil giñ ko ubil jumaa ji ko ci kaw soror bi muy snap du xasaay du dara waaye musique ba mu wër adduna bi yëpp tooñ yàlla tooñ yonent bi tooñ seen Tuubaa bu ñu ko weesu képp ku ko def waaye Muqaddimatul Xidma nag ka ko jiite ba ka ca suuf damay jàpp ni ka ko jiite wërte mën a fekk loolu li tax ma def vidéo bi mooy lii sëñ Muntaxa da koy war a yëg jullit ñëpp am leen naqari taalibe yi am leen naqari muy loo xam ne doo xam nu muy tekk waaye nag bu fekkee dañuy jàngat adduna fi mu toll danañ xam ni lépp pour l'islam ju sell nuñ ko mëna takalé ak nuñ ko mëna saboter saboté yi dinañ ci jaar dañ ko jaar ci ñi théâtre dañ ko jaar ci ñi musique dañ ko jaar ci ñi fo ñëpp ci dañ ko jaar ba nga xamni ñom luñ bëgg jaar rek ci ñom lañ koy jaar Marichou mom nak man na ni amul bern kon loolu ci la bok ndax mom bu ru won ab jullit sax war naa xam ne am na yellul waye nak nun ñu ko wax dara mënuñu ko wax dara ki ñu wax moy mu xaddamatul ñi ñu denk nga xamni lu gëna tuti loolu sax bu ko fa ni defé ñu taxaw di bañ ci lu mën doon te ñooñu mën ñoo lola, ci dëkk bi loola dama ni lan mo waral lool kon li war lan moy immédiatement ñoom fi saase dégg na ñu ndaw ci jéglu na man waxuma waxi ndaw ci limay wax moom mu khidma ci tur mouride yépp lañ togn kon nak li war am moy bi jëkku ci amon na son bu fi jallon ci jumaa ji ci radio son bu fi jallon bo xamni son bu doy war ci ki yoron radio bi loolu xam nañ ko ñu dëkk tuba xam nañ ko loola jall bi amat te bobu kenn waxuma ci won dara mu juub dama naa am ci wàllu machine rëcc nit waaye loola ñëpp déggoon nañ ko mooy lu garaaw a garaaw a ñu teg ko muy son bu jàll ci jumaa ji te garaawoon na lool bii nag moom kenn daa xamul noo koy layale ndax mënoon ne njuumtal machine la kan moo ko ubbil fi mu jaar ba jàll ba yéeg ci kaw kan moo joxe ndigal ñu ubbil ko damaa jàpp ni fii fi ñuy yéegee ci jumaa ji caabi ji ki ñu dénk mu xaddamatul xadma moo ko war a yor bu fa kenn di yéeg jumaa ji ku fay lay war a loolu jigéen du ca bokk ndax jigéen amul lan luñ ko war a mën liggéeyloo ci kaw jumaa ji même bu dee liggéey sax daganul mu yéeg ci kaw jumaa ji tiim xuboob sëriñ bi même bu fi xuboob sëriñ bi newul woon sax daganul mu yéeg waxantuma laak nag mu ngi doon jigéen kon mu xaddimatul xidma li ñuy exiger di ko laaj mooy immédiatement ñoom dañoo war a jóg def ak leeral li ñu koy defee ci xew yépp wax mbir mii lan moo ko waral kin kan lañ neexal xaalis bu fekkee neex la am na ci kan moo ko ubbil bunt bi ndaw si itam ñu woo ko enquête ko lan moo tax mu def lii ndax du bëgg snap rek du bëgg musique rek am na loolu ci ginnaaw mbir mi amna lu ne ci ginaaw kon muqaddimatul khidma nañ jog jéggalu doomu araba yi wax ak nit ñi ndax jumaa ji jumaa yi Sëriñ Tuubaa la mouride ko moom murid ko bokk ko mom mouride yi lañ fa tegal ak jurit ñëpp ngir ñu teg ko buy barabul islam bu sel ñëpp xam ko teg nga xamni serigne touba fi mu tek jumaa yi ko xamni xam ne bu ba ko ay nit rek amna lo xamni du personnel du benn membre bo xamni nek na ci muqaddimatul khidma bu tax ñuy wax liñ leen dénk mo tax ñuy wax ñu bok ko mom ko té mu jëfi serigne touba yo xam dañ ko wara fagar yoonu luñ ci denk nit kooka dañ ca war a teg ba di ko saytu na mu ko war a saytoo kem talaay kattanam waaye lii mënoo koo layal fenn ubbil nit jigéen mu jóge ca àll ba ñëw di musique ñu ubbil ko mu yéeg ba ci kaw di snap ba adduna bi gis ko yëpp lii mu xaddamnati xaddam nañ jóg léegi leeral lan moo waral loolu ba def ci enquête ba tam yi nga xam ne ñoo ci bokk mën naa am du ñëpp ki nga xam ne moo ko def nañ wax nit ñi ni diwoo ko def enquête ko moom yóbbu ko denc ko ci roq laaj ko ba xam lan moo tax mu def lii ndaw soo see itam ñu woo ko laaj ko lan moo tax mu def loolu jéglu rek da ciy tuuti maanaam lan moo ko yebal lan mo tax mu def li ak lu mu jubluwoon kenn kan ko leral ken ken mu ko te gëw mu ni sax ab taalibe la lima for lima for ci yow nag wóoraguma waaye gëw ni taalibe la kon lan mo gan yebal lawra ma am momi tam bay def lu mel waye waaye mu no ko wax dara dara nga ko mën wax ndax mat gi ñu sentu ci muxaddamatul khidma ak intelligence bi ñu sentu ci ñom ak ak ak wagar gi ñu sentu ci ñom ak foogu gi ñu sentu ci ñom yaakar na ni ken du bana natali li dal nit nit ni dañ ko njumte la mu na su ko ji njumte abi ji kan moko ubil jumaaji ba mu yek kaw soror bi bay taxaw di snap ba noppi musique bi nga di ko dégg muy teg musique yaakaar naa ne lii mënu ko gàcc mënu ko weesu ku ñu wóolu nag toll toll nii ci yoonu Sëriñ Tuubaa la ci gën a tuuti bu ñu la dénkoon ak lu lu mu tuuti tuuti sax wóoroo waxantuma rek lu toll ni jubaay Sëriñ Tuubaa Sëriñ Tuubaa ne fi murit yëpp yaakaar ko doy loo ko di ko xool ñu mën a bàyyi jigéen jóge ci àll ba bu doon taxaw di jàng alxuraan sax jaaduwul waxantuma rek nag muy muy teg musique teegu sooral lii nag moom nañ jóg léegi ñoom def déclaration leeral nit ñi lan moo ko waral ak kan ci membre yi moo moom lañ moom lañ neexal wala moo nekk ci suuf wala lobby bi lobby yi nga xam ne ñoo yebal ndaw si ak ku mën a doon ndax ñun am na loo xam duñ ko ndaw si moom fa mu la ko yebal li ñu jubli ci geste bi ñu def yëpp loolu moom beneen la waaye mu daal na leen wér ni lii sëñ Mountakha da ko war a yëg di koy yëg ñu xam ne nañ jël responsabilité nag parce que mun a jàll noonu rek déedéet wax ji nag fi nu sëñ Tuubaa egg moo tax ñun ñëpp noo bokk sëriñ Tuubaa amul kenn ko ko moom kon li waaye kenn ku ci da nga cee def la nga la nga xam ne moom nga ca war a def mu xaddimatul xidma ak lu mu a doon ku nekk rek boo defee li nga war a def rek ñu xam ne def nga li nga war a def waaye lii moom naqari na murid yëpp te war naa ni sëñ Bousso mañ ko ba ko jiite xëy na jombul ma nga këram waaye ñi monté woon keroog ci bis bi bi ndaw si ñëw ak ki ko ubbil nañ seeti kan la ak lu waral mbir mi ak lan moo ko nas na gaaw léegi loolu dañ ko war a def waaw murid yëpp ngi déglu nag am nañ leen naqari te tooñ nañ murid yi fu tooñ di yem sëriñ rek lañ njëkk a tooñ lislaam tooñ yàlla tooñ yonent bi ndax li nit mbir mu ne su ko deg te amna lu fi amone kon ñaare bi mi ngi nii kon nak mu xaddimatul xëy na nañ jog leral mbir mi ba nepp japp ki nga xamanteni mom moko def ñu genné ko xamal ni diiw la enquête ko ba xam lan mo tax def mbir mi li dal mo mën ta ñak ñu wax lañ ko fi saxon tuba ñepp deg ko parce que amna yo xam dañ ko bayyi mu jall mukk te sëñ Muntaxa itam da koy yek kilifa yi diine kilifa yi ci rek bi yëpp dañ ko wore ñun bu ñu amatu lu señ tuba juma ji desewul ñu lu mom diko xol bu fekkee ne mën nañoo bàyyi nag ba fami ak lu nit du ci dugg rek boobaa war nañoo toogaat nag xoolaat mbir yi bu baax a baax wasalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakatu incha allah rabbi bu ñuy def bilan màggal gi fii ak suba dinañ ci dellu si incha allah jërë ngeen jëf wasalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakatu nañu xam ne tooñ nañ murid yëpp naqari na murid yëpp te itam fulla ak fayda ak ñor war naa weesu lii nit bu ñu demee ba dénk ko leen li am na loo xam ne mu ne su ko layal njuum te mënees na koo xam waaye lii ak tayef la gu rëy rëy rëy nañ ko enquête nag gaaw leeral ko bokk yëpp ni ñuy leeral yi fi jaar yëpp ci biir jumaa ji wala ci sëg yi wala yeneen ak yeneen jërë ngeen jëf wasalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakatu